man ak yow amatuñu jàmm amatuñu salaam léegi dem na sax ba man sama jëmmi bopp ah sànq rek yàgg naa ma lan ma lan ma may ñaaw njott man maa yey ñaaw njott maa yey ñaaw njott parce que man mënatuma am ci yow dara loo xamante ci man lu neex la mais moom lu la sant nga nga def ko te am na yeneen yoo xam ne sama fekkee ma yëgu ma tinu man kii damay laaj ba xam sa nijaay la am sa lan la man loolu laay laaj ci man ko parce que sama xel tey na sa diggante yàgg moom nijaay waaw man la sama xel tey yooyu nga xam na ngaa dem beneen jigéen. xale bu ndaw ñëw ba ci kër gi dima attaqué. Mm-hmm. Mm-hmm. baa li ngay wax kii sama nijaay la sama deret la. bàyyi li ngay wax gis nga bët bu rusul gi da koy téye. man ah. su ma waxul waroo wax. yaa ngi may dégg su ma waxul waroo wax. may wax nga may génne ci néeg ba jàpp ma dama indi fii. waaw parce que xam nga lu tax ma génne la moom mënul jug daane day dem ci biir néeg bi dem di dugg sa biir néeg yow. parce que da ngaa ñaaw njott. laa mën a seqal moom ci néeg bi yow looy xalaat pour la nga xëy ba seen ay sama déret la sa déret la nga xëy eh, wala yàlla suñu borom dana la sa rakk joo bokkal ndey ak baay sa bu leen jege yantoo bu leen wéet yàlla loolu la wax moo xam ne ki diggante góor a jigéen ma tax mu wax loolu yaa ngi dégg baax kon même bu dee seen lijaay la moment de ful ful mun naa am problème am loolu lay bañ waroo koo bësal ay tànkam tànkam bu fekkee day metti am naa droit bësal ko ko waaw ndax dara nekku ci dara li ma def dara nekku ci yow kay li nga def moo ne weng eh déglu wax la man defuma dara man moom yaakaar naa ni moom yow desalatoo ma dara boo demee ba nekk ak jigéen fu ah. teeku ba set wecc ba desee calcium mu taxaw di ko wax ngay kilifa nag li ngay wax ñaaw na de jëmb billahi li ngay wax ñaaw na ci biir Sénégal bi wallahi loolu amul xam nga nga ko taawloo ah waaw billahi wallahi loolu amul nga am ci àdduna am am da nga koy weddi da nga koy weddi loolu nag laa xamul fan la jóge ci àdduna mais billahi yàlla moo dara teewul yàlla na ko leeral ba mu leer nañ hmm. parce que man ak yow dafa war a leer ah. luy leer. ah lépp a leer am ana lu fi lëndëm. Ah. fii lépp dafa leer nañ amu dara lu fi lëndëm di. ah fii lépp leer na. léegi nag beneen bi mooy ginnaaw ay jàmm man donte même maa man bu fekkee sax man maa tooñ ah rusuma nem rëpp ci suuf baalu la àq te te tooñu ma mais bañu mu loolu ngir baalu la àq ngir nga jéggal ma te yàlla rek tax. parce que man sama kër gi jàmm laa fi woote laa peegu wat sëkk laa fi woote mais yii may gis nii sama kër neexuma bu dëgg dee dëgg neexuma te kenn indi ko na ku dul sa nijaay ji yàlla xam ne moo ko fi indi parce que dañ ne bu dara xewee si kër te musu te xew gan ñëw fa mu xew fa jàppal na gan gaa ko indi te bëgg naa nag nga delloo sa xel man ak yow démb la tey doog a ñëw. nijaay pare nga pare man nag am naa problème nag man koor gi nii laa ko nar a waree ren lii nii te kenn teguma ko kulul benn doomu aadama xam naa ni may def man xam naa ni may def damay génn kër gi abal leen ko ñoom ñaar ñu yaa di sëy benn yoon mu dem mu yaatu mu yaatu jeex man xam naa man noonu laay mujjee def waaw parce que man xam naa ne man baare naa leen man man xam naa ne baare naa leen ñoom ñaar waaw parce que mënutuma am lu ma neex sama soxna su ma waxee du ma àggale mënuma pare nga dem ku ne nag ñëpp a ngi gis nag ah ba te nag sànq nag wax nga fi wax boo xam ne danger la fii nga taxaw naan xuma yaa ngi ne ko sa intimité ah yow dina nga war ngaa téye jabar jàmm naan ko si intimité mi yow laa laa nekkoon yow jikko ju bon ja fa nga ko jëlee bon ba dee war ngeen yéen xalaat leen dee war ngeen a xalaat dee nit ñu bon ngeen ñëw si kër jàmbur kenn xamul li ngeen fii def lan la. salaamaaleykum bonjour. maaleykum salaam waaw man. ça va bien astafurlah monsieur. ça va bien. waaw yow. oui vous habitez le quartier. vous. na dëkk fii. waaw waaw fii daal fii ah, daal. voilà voilà en fait ok. je parle. ah Fara Fara waaw waaw Numbe. non Numbe. waaw waaw waaw Numbe waaw je suis là. ah fii la je suis waaw. ah ok. je suis là. Numbe c'est ma sama gal la moo xees nii t'as compris. non attends te nga ne Numbe salam la. sama gal. yow euh, Numbe Numbe moom ngay seet. waaw mon père tamit aussi on a fait un waaw kër gi sama kër la. kër gi man moom kër gi moom sama biir kër la man man man maa ko moom waaw mais am na ku tudd ndumbe ku nekk ci biir kër gi mais nga ne ndumbe yow salan la waaw alhamdulilah ndumbe sama mëf ah Salam Ouf. waaw on sort ensemble dañuy génn. yàlla def na def nañ benn at. d'accord def ngeen waaw ma ñëwoon jaarale pour indil ko suukaru kooram. Hmm. te xam naa sax fi la dëkk parce que su ma ko waxee da nga xam moom moo xees nii. Hmm. am wenn. Hmm. waaw dama bay waaw dama nekk tubaab te nekkul tubaab am tamit. am am ange am ange ba ci ñu dafa am. yàgg nañ. dama ñëw daal indil ko suukaru kooram. Hmm. waxtaan naa la ak moom. yàlla baax na. Hmm. donc kon baax na. Ndumbe. Ndumbe. liggéey loo may doyee waat. réponds tan tan tan amour. liggéey loo. waaw sëñ bi naa def. ça va bon. ça va. ça va bien non. je me suis trompé ah c'est pas la Ndumbe de Richard. dundumbe boobu. kii kan la. Hmm? kii ku muy seet nga. attends xam nga lan xam ngeen lan la man yéen jóge ma jommal digg bëccëg gii gis ngeen nag il faut ngeen bàyyi xel benn affaire problème bu ngeen jël teg ma ko mu jàll ngeen bëgg indiwaat beneen problème non attends déglu leen ma rek ndumbe parce que man su ma jënguwul léegi ma dee te nag du ma dem ngeen gas bi du ma ko def ndumbe xam nga lan la kii damaa bëgg nga wax moom xam wax bu baax a baax a baax a baax. kii fii la ñëw léegi ne ma ne ma Ndumbé salaamaf. non attends ma ne ko waaw d' accord naa. du Ndumbé bii père du xaw du Ndumbé bii xamal eh, bii. nijaay déglu ma ma wax la sëñ bi ki ngay seet nu mu tudd. Ndumbé. Ndumbé nu mu mel. non comme yow la mais ba tey kanam yi des na quoi bokkul te ah. moom am na ñaas fii ñaar. ah wax nga dëgg <laughs> kii. ah fii sant kii ki muy seet. maa ngi moom ñoo bokk tur. ah yaa ngi may dégg. <laughs> nijaay yaa ngi may dégg est ce que. maa ngi lay dégg. waaw kay. maa ngi lay dégg xam nga du man. maa ndax kii sama jëkkër la man damaa am borom kër kii mooy ah, sama maa ngi jégalu maa ngi jégalu euh, parce que dama indi benn cinquante mille bu ko a jox suukaru koor je vous le mm-hmm. mais xam ma ba xam yow la te en ñaar jëkkër jabar man maa ngi jégalu wax dëgg yàlla tout le respect que je vous dois wax dëgg yàlla man maa ngi dama excuse wax mm-hmm. dëgg yàlla ah, mais mais yow ndumbe yow nga yaakaar ne yow ndumbe kii nii kañ nga ko gëj gëj gi gis yow. non du moom père. nijaay kii déggoo lim la wax olof yi daa leer naa ñi du man ki muy seet amul jëkkër. ñu il faut nga tey nekk. am na yoo xam ne bi nga bi ko comprendre yow nga ne gis. non non ma parce que tamit nit mën nga ko gëj a gis ñaari ak ñetti at mu changé. moom mel nii. sëñ bi jugal nga dem. mel woon nii dafa ñu doon dafa créé yow nijaay mënoo maa dimbali sa wax ji bëri kii du man ki muy numbe boobu muy seet du man bàyyil kii mu dem gi balaa dog di jot doo dégg. yow même bu dul moom. eh, eh ma nga. yi laa wax. ñu ngi jéggalu da xam naa de. jërëjëf mën ngaa wërsëg bu ñëw ba ci mën ngaa dem sëñ bi jërëjëf. ko amoon jël waaye. ni moom la. wuy ma eh. Hmm? romb ma nii. yow sa raxas day fëkk boor romb ma nii. non dëpp. Eh, benn benn ñaar ñett gaawal Ndiaye wax ak yow yow kii xoolal. dem te nga ñëw. daal man daal Ndiaye heure bu ma yaakaaree changement léegi mu am beneen bu bees ñëwaat. ni changement di amee lu dugg ci kër gi nga dàq ko lu changement di amee. yow xoolal dëkk bi ni mu rëy xoolal Sénégal ni mu toll. ñaata ndumbe nga fi gis. benn. muy bu la neexee bu la neexee nga ne benn nga fi gis. kii dafa juum dugg ci kër gi di seen ndumbe mu tombe tombé pourtant ba muy commencé wax yaa ngi commencé woon di mer di fiir waaye ba ci xaalis duggee noo def bëgg jaay sa ngor gis na man du ma soppeeku te xaalis du tax ma mës a changé ndax su doon loolu du ma la sëyal yow xam nga bu baax li ma la wax <laughs> te foo toog naan 500000 laa ko may premier cadeau yow xam nga ni man ak yow ñoo fi nekk yàlla. 500 mille yooyu ngay dindi zéro teg ne muy 50 mille waa ji 50 mille dafa indi di ko yóbbu suukaru koor kon xam nga ko premier kadoom kenn xamul nu muy toll damaa bëgg na nga réglé man bu ma waxul waroo wax man sama ngor du ma ko jaay ndax cinq ndax 50 mille xalaatuma ko moo tax nga may wokk man mi lu ma noonu de lu ma am ak yow problème problème damaa gore te damay gore ba dee yàq nga ko nag ndax jëloon naa décision sax xaw laa baal tey guddi gi. xam nga xam nga xam nga yow Ndoumbé la ma defar naa sama jinjeer defar naa leneen la leneen la waaye yàq nga lépp xam nga bëgg ginjeer googu àggaguñ ci. ginjeer googu boo ko defee rek. maa ngi àgg ci biir de wax la rek. dangaa wax ba noppi dem mooy déglu yow Ndoumbe boo fekkee situation yu demee nii lu la wax yi mooy nga du parce que ku ne xam na ne yaa ngi naan ay xawma lan changé wu waaye xaalis nii war nañoo mën a soppi war nañoo mën a changé Ndoumbe weeru koor gi nga xamante ni si dafa méttee méttee métti man dëpp ba koor gi tàmbale ba léegi amul dërëm boo xam ne yëkkati naa ko jox jox naa la lu dul yow say càmmoñ rek ñoo la dimbali kon yow cinquante mille bii bu duggee si kër gi ah même bu dul ndumbe même bu fekkee ne sax moom dafa juum même bu fekkee ne sax moom dafa juum ndumbe ah su ma lay wokk nga xam ne maa ngi si temps di déglu ndaxte olof Ndiaye dana diggante déglu déglu dafa am ndéegu mais yow sa jëmi bopp yow yow yaa dul déglu kat yow yow dégloo tooma sa dijaay rek nga topp di ko déglu te nag yàq nga loo xamante ne si nag ay ndog yu baax la woon xoolal da koo yóbbu ca kako moom du ma ko lekk dama woor ba ngoor di di yàq sama koor ndax cinquante mille du ma ko def sa liggéey nday sama liggéey nday laa ilaaha lekk naa ko bu yàgg ah. jamono ji ñu toll nii ngor moo ma fi téye ngor hmm? dereetu gor gi moo a fi téye est-ce que yaa dégg man nag sama wax yow du bëri dereetu gor yaa ngi sama wax yow du bëri ndax yow dangaa nar a jaay sa ngor ndax xaalis soo gore woon soo gore woon ni nga mel ni man jaay ma sama ngor damaa sonn nga ñàkk jom di mel ni borom koy gu ñu dab di ñam yow yaa ñàkk jom waxal leen ma woon xamee damaa yaakaar ne àjjana si boppam yow soxla woo man dama yaakaar ne dama yaakaar ne àjjana daal soxla woo ko yow man loolu laa yaakaar fu mu taxaw naa cinq cent mille joxoma lu du cinquante mille yoo xam ne dama lay suturaal solo too dara nag solo solo too may xam nga laa bëgg ah nit jaay xam nga lu ma bëgg nga ngaan ndumbe waa ci nga naan ndox te nga dimbale maa ndumbe ci bu ma woowat <laughs> eh, eh, sëy baa ngi jéng sëy bi nag mu ngi jéng sëy bi nag mu ngi si yoonu nag despaté wu nag sëy bi nag mu ngi si yoonu nag fu mu toll ne ku ne xam ne foo jëm parce que ndumbe bu demee bu demee banaan ndijaay nga ngang ma wàcc ah, ah nday ndeysaan yow nag maa ngi soog a xam ne nag yaa ngi confirmé ak sa eh, ndijaay jooju man loolu ma manqué doog a xam billaahi waaye ah moom ah, ah, dafa am problème wax yëpp dégg naa waaw sànq <laughs> mhm. ngir ma dog mhm. <laughs> waaye wari nga waaye nag kaay ma xamal la benn. gannaaw yow yaay jaay ma xamal la benn bi. toogal. aw ma mu toog di. amoo maa ngi dem maa ngi ñëw. gis nga dinaa la yëgal benn affaire. ko jàpp mais bu la leeree muy sa jàmm yow. ma jël naa samay mesures rek muy jàmm. amoo koy xaw foo jëm. waaye boo dikkee di nga ma seere mag sa mag mii. waaye duul. Ah. ma ne nga waa baax na naanaa waa baax na seen kàllama yooyu man bis bi xoolal du moo may wari loo tey du moo may wari loo ëllëg mais dinaa leen wan ne kër gi maa ko moom boobu léegi nag yaa ngi naan xawma heure ma la génne kër gi di nga dem yàgg sa jarbaat waaye bu sooba yàlla yonent bi tey bala ñoo ndogu di nga génn yàgg sa jarbaat bu sooba yàlla yonent bi ngay bàyyi ma sama kër ma desal yàlla man waaw parce que Ndoumbe def na ma loo xamante ni musuma koo def te yow yaa tax Ndoumbe di ko def nit ku bon nga ku yës nga nga may indil ndox naan ma ay naanam